lu suñu mbën wóor na sëñ Fall bu ko bis ko président Ousmane Sonko recevoir bu kenn wax lay xam man may kan bu président Ousmane Sonko recevoir Alimaane fan yéen ñu mën da xam nga ko buntu primature la doon tamambaalu wóor na sëñ Touba bëgg ñu recevoir ko élection présidentielle yi dafa taxaw di saaku man Sonko am na ay booy yu xale bu jigéen boo xam ne ko dóor ba mu fii la ko indi ko faj Aly Mané garde corps ñoo ko def premier kuy recruter nit bi si àdduna boo jàppee Aly Mané jàpp ko boo ko bàyyee bàyyi Aly lu leer mi laa la tegal nii xam naa ko baax xam naa Aly Mané mbokk nen waaye mbokk yi xamul jegewut noonu suma mbokk la suma maam la si ci côté mu mën a waxee waaye dama ni na bàyyi wax ji muy wax dem si gerte gi naan waa gerte gi nangam nangam gouvernement bi nangam nangam Adi Mané dama la wax benn lu gën a dee liggéey loolu ba nit kooku ma ne liggéey loolu laa la wax ba nit kooku génn bàyyi ko kooku feebar na ko jox ma sama xaalis bi ma des Adi Mané ko fay xaalis bi Adi Mané am na ñu desal xaalis ba léegi nii nii nii nii mënu fay Adi Mané day saaka day Adi Mané bis wóor na Sëñ Tuubaa nekk nañ na ma man ku ma nettali du xale Moustapha Kane mu mu ngi fii comme coordinateur Pastef bu bu po euh, lan xaar ci li nga xamante ne bu fekkente ne sa appel bi ngay lancé ni bu dee antuwul lan lañ mën a xaar ci sa position biir Pastef sama position biir Pastef lenn kese la yàqkat yi moom duñu jege biir Pastef man yàq transhumance yi Ousmane Sonko moo tax wax ko carrément il a dit clairement il a précisé doute baram bëggul transhumance loolu yomb na kon nag ñun waa Pastef ñun lay ñun ñun ndaw Pastef ñun nañ gën a jàpp nañ gën a téye fonk suñ kilifa yi ku ñu président Sonko wax ñu jàppale ko ku ñu tabb si gox bi ñu jàppale ko buñ bëggee sans le Sénégal mën noonu laay doxee yaa ngi ma fekk fi damay ak sama mbokk nag man nii laay doxee am benn problème c'est pas problème jaajëf di ñaanal ñëpp jàpp waaw waaw xam nga wóor na sëñ Fallou Ousmane Sonko def si mais wax bu leer laa lay tagal nii président Sonko desatuñu dara desatuñu dara yar nañu yiir nañu jàngal nañu xam nañu yeewu nañu te muus nañu gën nañoo muusati loolu Ousmane Sonko man def na ko suñu nii changé na doxalin politique bi politique bi ñun naan amee changé na maire yi ko ñun yow sa diggante ak sëñ Fallou bu fekkee la wax du dëgg ne ma da ngay fen mës nga gis dëkk bu ñu dem jël tuset palankaar wéy wéy wéy wéy wéy koo si gis mu ngi jooy li muy jooy maanaam na ko teg bët rek na ko teg bët rek dem même bu ñu ko tegul loxo dañu ko teg bët loolu la ñuy woote door a wax dëgg li ne sa xol bi xam li ne sa xol man li ngay dund xam naa ko yow te dana leen mënuma génneel fii cent mille sa téléphone sa poos yow mënuma ko génneel te war nga ko mën a yor liggéey bi ngay liggéey sa patron defut ko waaw nee na nag léegi sa patron moom bu dawalee oto bu dawal bi yor un million yow war ngaa mën a daw oto bi jar cinq cent millions cinq cent mille nañ waxtaan yow tey jii nii dama lay wax ma ni na suñ Tuubaa may leen président Diomaye mu defar réew mi trois ans rek trois ans ngeen xam ne maanaam golo gu nekk xam na ku sa baay wóor na suñ Tuubaa duñ doxoon ci caaxaan man bu ma leer na Pastef mii nii nii nii nii depuis deux mille quinze maa ngi ànd sawaay bu ma leer na man man Ousmane Sonko muy commencé def yenn yi dama xam ne président maanaam man bàyyi ma ma ne ne sama tool yi maanaam jaay mboq kom ni ma fekkee nii. waaw waaw koy mboq mi lu ma si jaay fu nii lii ma ko baykat yi lii lañ am wax na ko dina jënd mboq mi dina jënd gerte gi si bu abordable lu ngeen bëgg mu wax leneen ñii jaxase noonu lañ mën jaxase non gerte gi taxut luy sax mbiru yàlla suñu borom la yàlla mooy tey lii bu ma ko jëloon nii lii mu ngi nii mboq la su ma ko jëloon nii waaw ko ba mu waaw ma gas ko suul ah li ma am dunde yaakaar mooy mu màgg du man maa yàlla suñu borom mais bu la yàlla mayee nga am benn lii mu indil la mu indil la mu indil la benn lii loolu lii nga ñi nga ji benn doom mu indil la ko yow la sant yàlla suñu yoo xam ne ñu ngi lekk suuf am na réew yoo xam ne réew yoo xam ne dañuy dañuy gaafee xobu garab ko gis naa ñuy lekk jaan gis naa ñuy lekk leneen gis naa ñuy lekk golo ñu ne lekk yàlla dafa lu ñu loolu ñu ngi ñun duñu lekk nit gis naa nit ñuy lekk nit di lekkante ñun amul fii Sénégal waaye nag ku ñu naral lekk nag ñu yëg la ñu. opposition bi yàq nag moom. dégg nga oppo man fi amul opposé. 50 ans kenn du opposé wóor na Serigne Touba amuñu argument bi amuñu xam-xam bi amuñu munuñ ko nag munuñ ko xamuñu ñu opposé woo xamuñu jafe-jafe askan bi lan la dugg ci askan bi li leen ñor mooy man yow si campagne bi gis ne ma dégg ma ma ñu Assane oto mu ngi nii dañ ma tax gis nga ma ñun oto bii oto Azoura la néew ma ci loolu man si ginnaaw oto bi laay toog. def la ma war a def séq ko ma ko a séqal jàpp si pour jàpp si ma ñàmm nekk mu sa affaire de clim nag ay affaire de néeg bu rafet déedéet nii laa mel waaye ku dugg sama 18 moom man ku dugg sama 18 tu auras tout soufflé un a dit bien dire fait mais si tu veux la paix tu n'as qu'à préparer la guerre opposition bu fekkee da ngeen a bëgg a jàmm leen guerre de di ngeen geer de maa ngi dégg benn benn benn benn mandikat mandikat boobu noonu ñuy tudd laay sàngara ah laay sàngara bu sa fekkee sa baay sa maam jur na góor wóor na sëriñ Fallu Mbàkke Barthélémy Dias bu sa baay jur bu sa fekkee sa baay baayam góor la jur muy sa baay góor la sa baay góor la te def sa baay moo la jur bu ñëwee Dakar tak attaqué ñu ma ni sa baay fekkee góor la te yow góor nga sa mandi bul mandi dama bëgg yow nga nekk nit ki lu si boo ñu xam ne yow yaa def lii bu fekkee am nga fit bul mandi laay sàngara bul mandi ñun buñ duggee Dakar tag wan ñu sa rewande ñun dinañ jël sa rewande gi ñun góor na suñ tuuma lañ jël sa rewande gi waaw waaw loolu lañ rëgg merci beaucoup moom <laughs> Degan dah. Mana dia